press address on GRTS on Wednesday, the government spokesperson Ibrahim G. Uh, Sankare finally made the official announcement of the new cabinet after a long wait or anticipation. Let's take a listen to him. His Excellency the President, acting under Section 71, subsection 1 of the Constitution, has created a new ministerial portfolio in charge of the public service, administrative reform, policy coordination, and delivery. The new Minister of the Public Service administrative reform, policy coordination and delivery will have general oversight over the public service and shall work towards the formulation of policy geared towards institutionalizing a culture of discipline, excellence, and accountability in the public service. Furthermore, the new minister shall continuously review the inner workings of the administrative machinery of the government and make proposals for reform to reduce inefficiency and increase output. Finally, the minister shall be in charge or shall be charged with developing framework for monitoring the implementation of government policy and for ensuring effective communication and horizontal coordination between ministries. Accordingly, and acting under Section 71, subsection 3 of the Constitution of the Republic of the Gambia, His Excellency the President is pleased to appoint Mr. Babu uh, it's also Baukar Usmaila or Baukar Usman Youth. There's a typo, uh, sorry, as, as minister in charge of the public service. Administrative reform, policy coordination and delivery with effect from the 4th of May 2022. In light of the new changes, His Excellency the President hereby makes the following administrative changes to the public service and the office of the President. One, with effect from the 4th of May 2022, the Secretary General and Head of the Civil Service shall be the titular head of the Personal Management Office with the sole ma mandate of supervising the civil service and answerable to the minister. His Excellency the President is pleased to appoint Mrs. Salimata E. Toure as Secretary General and Head of the Civil Service in accordance with Section 168, subsection 1 of the Constitution of the Republic of the Gambia, 1997. Two, furthermore, the role of the Secretary General as Administrative Head of the Civil Service or as Head of the Office of the President shall be taken over by a Chief of Staff who shall be appointed by the President. His Excellency the President is therefore pleased to appoint Mr. Maud K. Sise as Chief of Staff. All correspondences for the President shall henceforth be addressed to the Chief of Staff. Furthermore, His Excellency the President has decided to decouple the Ministry of Information and Communication Infrastructure, commonly known as MOIS, separate ministries, namely one, Ministry of Information, two, and the Ministry of Communication and Digital, Econ Digital Economy. The existing departments and their manpower under the old MOISI will now stand as sector-specific departments. In this regard, one, the Department of Information Services will now serve as the technical the government charged with the implementation of policy initiatives and ability, public relations, and access to information under the new Ministry of Information. Gambia Radio and Television Services, GRTS, will continue to be the, media, the media, main media candidate of the dissemination of information and public programming. Two, the Directorate of Information and Communications Technology, ICT, under the old MOISI, will be transformed into a standalone department under the new Ministry of Communication and Digital Economy, with the primary objective of increasing internet access and driving digital innovation geared towards unlocking new pathways for rapid economic growth, innovation, job creation, and technological advancement. These department structures are already existing under the old MOISI with the necessary manpower and under separate budgetary uh, headings or budget headings. Accordingly, and acting under Section 71, subsection 3 of the Constitution of the Republic of the Gambia, His Excellency President Barrow is pleased to appoint Mr. Lamin Queen Jame as Minister of Information. Honorable Ibrahim Asila will continue until the formalization of the appointment of the minister designate. Signed, for Secretary General Ibrahim Sise, Cabinet Secretary, dated this fourth day of, of, of May 2022. End of broadcast. Thank you. The uh, government spokesperson, Ibrahim G. Uh, Sankare, who made the um, formal announcement of the new cabinet, as you had uh, there. Uh, of course, I'm glad to say now I would be uh, joined by my colleagues and, of course, another guest for us to discuss at length on the, on, on the new cabinet. Euh, su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu euh, finally Gambien si xam nañ ni dañu nekk joorin ñi nga xamante ñoom ñooy liggéeyandoo ak président Barrow euh, ci at yi di ñëw incha allah comme ni nga ko waxee woon yàggul ne dana make announcement bi finally xam nañ naka la te nag bëgg nañ cee discuss lu bëri bu ñu waxtu mayee ñu yaatal ko ñu am mbégte dalal fii MC Cham Junior bu GDC moom moo nekk seen national youth president bi ñu bokk ak moom jotaay bi ak tamit ban jàngat. ak gis-gis lañ war a am ci euh, jëwriñ yi ñu tabbu yu es ak yi nga xamante ñu ngi fa te ñu menteel leen ak yu mel noonu MC ñu bàyyi la nga nuyoo ak euh, waa Gambie ñu lay seetaan de su ko defee nag ñu euh, soobu ci biir waxtaan bi. Ah, jërëjëf El Hadj Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax a baax di nuyu Mr Niang. Mm-hmm. di nuyu tam maam ji bi Eh, di nuyu mari mel ni Africa TV yep mm-hmm. ak ñu ci seetaan programme yep euh comme nako waxe waxee tay tey bu important la euh bu nga xamné ne ma ñep gis nañ ni eh, gambie amna na new cabinet after 5 months in office for president Barrow bu ko élégué ba léegi mm-hmm. ciow yu bari démb ba fu nekk nii jël na décision bi taana ay ndaw ñu xamné ñom lay la am yaakaar si almost 2 million gambiens mm-hmm. so ba tay rek ñu ñew ku waxtaan lolu loolu wax suñu xalaat la lay expect ci ñom ak la lay xam ci ñom tam pour gis itam loolu yëpp dafaa dimbale réew mi dem si kanam. Mhm. di wax ne asalaamaaleykum. waaw jërëjëf euh, comme euh, MC nuyoo na te suma gars yi ñoom xam naa ne moom am nañ ci interest lu bëri ci cabinet bi waaye MC naa door ak yow te nag dinaa joxe ay time because bëgg naa mu yaatu. dama bëgg nga def ah <laughs> te dinaa joxe time bëgg naa ñu laal lu bëri euh, ma jox la nga start rek sa réaction ci cabinet bi. ban nda am nga ci mbégteel mooy nda am nga ci surprises wala la li nga doon yaakaar ak li nga dégg wala li nga gis benn la waaw man am man ah, am na somme liste amoon ak liste bu ñëwaa dafa uti ah, lu ma gis mooy ah, sofa gis naa di vice président ma xam ne muy Badara Diouf kenn mosu koo déggal si any scandal o any coow ma ne am na si réew mi fii mm-hmm. nekkoon na UN di seen ting tam so foog naa ne technocrate la lu ma xelaat ren mooy waroon naa mun a am some political connection because vice président office bi dafa laaj am political connection political appointment il faut tam nga bul mu open nga mën a di grâce bi tam di mën xam seen problème tam mhm. dafa important si vice président bu ko président bi nekku éviter dañ ko mën jot bon amna di qualification bi amna respect xam nga lu gëna am solo moy place ko amee respect nekk fa xam nga di mhm. former vice président Assiré Touré dafa ñak respect si réew mi bu ko ñu bari gomné ni dafa dafa naari deret dafa wax waxam neexut so kooku du mën nekk vice président bu ko su vice président dafa ko amé ko oyof la ku mën a waxtaan itam ku xamé dafa mën déglu di respect ni itam so foog naa dis uh, vice uh, vice bi tam ba tey itam gis nga political appointment la. électé mm-hmm. mun nga ko appoint based on technocrate éle mu nekk politicien gis nañ ko fii di laaj ko docteur Samatian Odas. di mm. ngi taxaw si rally di wax. so ñoo ñëpp mun nañ ceeñaat élect nekk politicien because politique moom mën ngaa ewu suba da nekk politicien loolu is normal. Mm. so lu ma feel like mooy uh, am naa idée bu baax nag parce second itam dafa am ñu xam ne di laaj ko docteur Samate di bi barki Demba Ndiaye la trop ministre. waaw si département am. wala sàcc bi gën a bëri. kooku tey nga war ko mainti mainti si seen position. waaw nga xool jigéen itam. ok foofu bëgg nañ moo tax ma ne oh. dañ ciy ñëw dama bëggoon xam rek yow ci euh, announcement bi après mi def xam nga euh, comme xëj na yow am na liste bi nga amoon am na li nga yaakaar. waaw li nga gis ndax. Euh, surprise la wala comme ak ñi mainteen ñi ne ñu fa nekkoon ak ñi nga xamante ne génne na leen. da lu noonu séntu woon nga ko. séntu naa séntu naa ñun génnee nekkul ñëpp laa la laa séntu séntu woon naa ma euh, kii ma yi Bouré Ndiaye ne dina génn si Omar Faye séntu woon naa loolu euh, di vice président séntu woon naa ne dina génn ministre of energy di same thing tam euh, ministre of local government foogoon naa dina génn ministre of tourism tam foogoon naa dina génn ñooñu environment di same thing am na ñu jàppoon ne cabinet bu fi nekkoon daanaka ñëpp dañ doon dem benn wala ñaar. non man waaw man man lu ma gisoon mooy benn laa gisoon ne mun naa des. Euh, si cabinet bi nga xam ni moo fi nekkoon mooy Bakary Badji euh, parce que Bakary gis nañ actif maanaam suufa pare Bakary ministre bu mu jël ñu ko amee woon defum fa dara Henry Gomez moo fa njëkkee Henry xamul fil boobu dafa nekkoon turi ministre ret soo Bakary fa ñu fekka ministre bu nga xam ne doxut soo mu ngi ko doxal soo Bakary suufa gis nañ actif maanaam bi si wàllu sport si wàllu youth si itam connexion bu nga xam ne mu ngi ko itam gis nañ ko am na respect despite bokk leen parti yow moom si dajee woon na waxtaan ak yow déglu la so Bakary laa foogoon ne Bakary rek ma fara des c'est passé Bakary Ba yi all di ministres yoo xam ne ñoo fa nekk yëpp amul kenn ko xam ne sa ministre yaa ngi ko doxal lu nga ko war a doxee even foreign ministre foreign affaires gis nga coow bi am si si outside Gambie si biti di struggle foofu pour ñibbi si problème la kon pour yow président Barrow mitu demande si Gambien si doon xaar si ñi man soo faa lu ma gisaa ko man si man man man lu ma gis ne demande si nga xam ne lu leen lu gën a am solo mooy ministre boo xam ne moo amee wàllu suuf mm. moo amee wàllu wérgu yaram ah, moo amee ak ñooñu seen ministre ak tourisme tourisme right now doxut fay réew Euh, su war a dox bu tourisme dafa war a dox. ok nañ ñëwaat ci yow ci ñu des ak lan moo tax nga foog ne ñeneen ñi dañu war a dem euh, Mon Young Quickly ci cabinet bi ma bàyyi la yow tamit nga joxe sa gis-gis li nga doon yaakaar ñun jàgg nañ cee toog ngeen cee wax euh, team bi war naa ñëw te bu ñëwee winning team moo war a ñëw ak yu mel noonu li nga gis ak lu fi nekkoon wala li nga doon séntu ban ban ban ban analyse nga ci nga ci mën a indi. ah dafa mel ni dafa indiwaat nekk si beñ am na ñu nekkoon si beñ bi waaw ñoo ko fi waaye euh, ni ñu ko waxee rek mooy ne coppite moom am na si waaye lu askan bi doon aar du lii gars yi daal ñu ne dafa mel ni ko añee sa xam nga soo añee sa ciwu diwtiir bu xëyee tàngal ko da ngaa foog ne benn cin rek nga fi am parce mm. que dafaa jaxasoo mu nekk benn cin rek nga foog ne benn cin la fekk li nga añee woon la so dañuy tàngalal ciwu diwtiir bu fanaan rek ñu fon na benn ñu foog ne benn cin leen am waaye ciwu diwtiir bu fi nekkoon moo fi nekk waaw because lu si utee lu ndaw la comme MC wax na ko ne um, am na yu fa ceeñ yes because duñ mun a audit du mun a génn ñu ne di ministry bi département luubal ak njuuj njaaj moo ko fi gën a bëri li nga continuer bàyyi ko foofu loolu nit xel munu ko understand kenn mënta naw kenn mënta xam lu lan la ñaareel bi mooy ne uh, defense moom foogoon nañ ko because kooku itam kenn xamu ko daanaka ñun ñi dañ doon fàtte na sax ministre of am na fi ki ñu ko jox itam moo du wel nit la ko xamne tam ku am am-am la. ci si lifin bi bëgguloo ñu dem foofu. non xam xamna ne dinañ ñëw. ci ci ci loolu. ci loolu ñu dess ok ñaareel moy ne xëy la moo tax ñu dess ak ñu dem. la moo tax ak lan moo ok loolu dinañ ci ñëw waaw. waaw waaye ci cabinet bi. general ci cabinet bi in general lu askan bi doon xaar. waaw am na nit ñi soo génnee biti. comme MC mu doon wone mom mu doon sentu kenn rek mu dess ah. lu mel non yow yang ko doon baye xel. wala man maa ko doon askan bi bu maa ngi ko doon baye xel askan bi ñu ko doon baye xel ba legi démb yëpp ci guddibe guddi lu ñu doon mooy ne li ñu doon xaar si président pour mu ceeñ defu ko second li mooy ne président comme nu ko MC waxee five months mu ngi si cabinet léegi su suma problème mooy ne juróomi weer président bi toog pour mu tànnal lu mu ñaar fukki ministre jox ko problème ba bi ñu annoncé ministre yi am na ministre yi nga xam ne kenn nekkul fa mbaa mbaa kooku sax nit mu sa xel mun na tey ne doxalin bi sax mbaa dina correct good five months in yaa ngi ko nekk. Mm-hmm. mu loo tànn less than twenty ministres ba tey di di joxe dem di annonce ministre yooyu ba léegi am na ñaar ñu nga xam ne ba léegi ñu ngi amaguñu fa nekk. so so loolu mooy lan. ah loolu loolu loolu dafa tey xel est-ce que kooku dina yóbbu réew mi fu mu ko wax affaire yi euh, du dabaa ngi cher. parce que wàllu traite amuloo ko ba léegi si sa réew. soo da ngaa waaru soo finance mooy oversee ministre boobu. waaw so ba tey foog naa lu kii wax dëgg la waaye over five months war nga mun a Gambians is one point. less than 20 minutes less than 20 minutes Mulu loo during your campaign so your campaign sax president election si war ngaa mën a fam sa cabinet ne su ma ni ñii ñooy nekk suma government waaw sa cabinet nga ko war a am loolu opposition parti ko am even jiri si amoon nañ ko mais suñu winee kii ak kii ak kii mooy nekk place bi so kenn ku nekk yoo xam nga fa war a so wede so faa nekk fii moon ko ñaanam moon nga génne fa sax wala di fa so kon loolu moo laa ne eh, lii dafa nekk pression moo nekk si kawam lajjee na daal si tànn bi waaw pression moo nekk si kawam push ñi dañ ko pousse xam nga pare am na fana am na ministre yoo xam ne mu ngi ko créé nga xam ne nanguwuma ko wala nañ ñëw si waaw nañ ci ñëw mooy ne lajj na si tànn bi te demaguñ fenn te tànn bi dañ waxoon ne ñun lu ñu doon coow fii yëpp cabinet bii ñëw dañ si am yaakaar ba nga xam ne réew mi hand niveau bu nekk dinañ ko fi génne dugal ko number one ba dafa lajj si tànn bi parce que mënuñ laa tànn juróomi weer nga toog tànn less than twenty ministres ñu koy joxee muy des ñaar ñi nga xam ne amuñ ñu fa nekk loolu lajj la si Amadou te nag réew mi dañ bëgg mu dem tànn ministre nag bu la teyee ndax nak pour ministre yooyu ñi def seen liggéey réew mi dem ci karam loolu tam lu jara sétat la. ok fine ma good maam yoté ma ñëw ci yow ban réaction nga am ci cabinet bi appointment bi ak lo doon xaar expectation bi lan la war because danaka yow légol bañ ci togué sax dama bëggé fat rek ñu wax dégg dégg may rimaan ñu ngi amone li nga xamantene moy mooy caretaker eh, eh, cabinet gambien si di ñaxtu na changes changes amna na changes bi nak naka nga ko gisee. waaw oh, man suma bopp sa demba I was so shocked and surprised ndax li xew mooy. Mm-hmm. Euh, expectation bi ma doon am man gisuma ko dëgg la ne eighteen ministers lañ amoon ci cabinet bi hmm. ñu gis ne changes bi I think around euh, around around ten eleven lañ fa génne eleven lañ génne because eight ñoo fa maintain hmm. si ñi nga xam ne ñii lañ leen switch ak yooyu noonu ok ma am problème ci ne dëgg la président Barrow keroog bi mu wiinee di following morning press conference bi mu doon def man I was at the State House mu wane woon ne team bi mu àndoon ak ci qual ci euh, NPP alliance 2021 December for presidential election am na fa ay technocrate am na fa ñu bëri ñu nga xam ne ñëwuñ woon pour dimbale ko pour ut place waaye dañ ñëwoon pour dimbale ko réew mi dem ci kanam. man foog naa ne su ma juumut ci ñooñu kenn laa ci dégg ne fal na ko muy euh, Demba Saabal. mooy loolu kon loolu dafay loolu dafay. loolu dafay waaw non comme ñi nga xam ne. loolu waaw ñu bëri amoon nañ yéene. waaw non loolu laa la is what am saying foofu laa la joxe analysis. li ma wax nii su fekkee président loolu dafa mel ni kon président bi dafa dafa déggal kàddu bu mu wax. waaw laa la wax ma ne. Mhm. foofu laay ñëwee léegi xam nga. ñaata candidate ñoo demoon file seen nomination. Euh, boobu sax maam. li mu laa wax mooy. it was a partnership la woon. Mm-hmm. partnership boobu nañ ci ñëw. léegi bu endorsement point la wax de. waaw léegi point boobu maam fi ngay wax ay coalition partner boobu nañ ci ñëw. Mm-hmm. dama bëgg nga réaction si ci cabinet bi first ndax expectation bi. waaw non non non naa la da nga soog lan moo tax nga soog. ok loolu laa la moo tax ma ne parce que da nga jàppoon tey dañu waroon def général overhaul génnee ñëpp indi ñëpp lu bees. wala bàyyi fa benn ñaar comme MC nu ko. waaw xam nga loolu président président bi moo ñu ko dëggalal altine bi muy waxtaan ak euh, Banjul Muslim Elders Mune, ne monsieur Senghor ne suma cabinet bii may ñëw indi xaar leen ko ndax li tax mooy Gambians yi lu ëpp 2 million Gambians ñoo fi nekk ku pare liggéey dina liggéey te suma ma ñëwee di ngeen gis soppeteku. moom moo ko wax man nag loolu dama ko gëmoon ma yaakaar ne tey jii démb toog nañ fi dëgg la comme niñ ko waxé légui man gëmoon na né ministre of agriculture bu ko président indi won nit ñëpp dañu wara genn né ko né li lan la because of dëkk bi wax nañ né agriculture doxul ministry of health even ak loyalty bi lu mu mënta nek ko man bu ko gis moy bési five years protest la ñëk gis samate mu dugg ci biir nit ñi on asaan la génn day support président bi nga joggé fa demb gis nañ waxon na ko fi demb mané man dé gëm na né ak ministre bi lépp luñ ko mënta tuumal man am na féet bu ma gis ci moom xam nga démb wax naa ko fi. Mhm. moo njëkk a toog ci national assembly bi mu ne ministry of health corruption dafa am audit report bi ñëw dëggal ko ko bu ko baroo bàyyee foofu sax man gëm naa ne système bi ci health mooy problème. waaye du du du du samate. on a nañu ko dut baaraam moom waaw even though loolu laa la wax mu continuer waaw léegi damay ñëw rek ci ñooñu ñëpp benn du du yëpp laay wax waaye comme ñooñu yëpp nañ su fekkee waaw cabinet bi ma doon loolu rek nga bëgg a dégg li ma doon xaar gisuma ko man loolu laa léegi ñëwaat ci yow fi nga bëgg a laal boobu nañ falal naa ko dooree ak MC MC hmm. dooree ko ci vice président wax nga ko hmm. docteur Aïssatou Touré ñu bari ñu ngi ko wax ne la naa la moom dem na ak ñeneen ñi ñi dem eleventh ministre yi lan nga jàpp ni ñu tey lan moo tax ci ñu dem seen taxawaay moo moo doyut président bi wala moo doyul ci kanami Gambie moo xam ne ñi waru leen fee bàyyi li tax ñeneen yi nga xamante ni xëy na comme wax nga waroon nañoo dem wala nga jàpp nañu mel ni comme health mm. ak tourisme mm. waroon nañoo dem ak lands ñooñu demut waaye ñi ñu yóbbu forced lan nga tax nga jàpp ñooñu ñu dem xam nga ñu yóbbu mooy euh, nga xool di minister of euh, defence waaw euh, gis ne lot of coow moo xam ne ñu am diggante rebelle yi ak Gambie coow yi xam nga ah, xool kalango soo bàyyi xel mu doxee dafa dem dafa dem gannaaw baax a baax so lu bëri nekkul di dox si wàllu sécurité réew mi euh, bu nga xam tam information xam ne gaa si ko bëgg a dégg tam di nga ko mën a am agreement soo xam ne gaa ngi ko bi di Sénégal man ak koo gis loolu saa xam nga ko élégal si assemblée bi document si dinañ ñëw doo ko gis so loolu bokkal lu tax tam lu euh, tax ñu génne ko si place bi euh, second dem su nga xool si wàllu fishery mooy James Gomez Euh, gis neen coow bu nekk si wàllu géej bi gis neen agreement su nga xam ne ñu ngi ko signé di euh, di EU Sénégal government te moom daf ba tey request neen documents yi mënuloo mënu koo gis ba léegi so nga gis tam nga xool ministre of fishery ba kii demee Njaay seen seen naka office bi lakka na njëgéen dafa lakka documents yi lakka neen nga xool euh, di permanent secretary ñu ngi ko yóbbu court wit xam nga bride of home less than hundred thousand dollars xool loolu chain work la because permanent secretary bi mu war def rek fu mu jaar mu console with the yooyu yëpp am na peut être fesri dox nga xool jëni nu mu seere si réew mi ni yaa ngee soona léegi kobo nga xam ne dañ ko doon maye sax léegi kobo léegi moo gën a seer sax ifi ndawal fu mu nekk nii so loolu bokk na si nga xam ne ministre bi nekkul dox soo ñëwee si wàllu ah, eh, ministre of finance ah, gis neen coow coow économie bi xam nga bëri advice nañ ko di wee tigis ñi ngay ñi ngay di yokkee di ko baa ngay yokku dara wàññeeku xam nga nekku di wax gaa ni dëgga soo yooyu yëpp bokk na tax président Barrow fii laaj na ñii léegi high time. ñu ñu génne leen. because tam coow baa ngi bëri si ministre bi la ba tey tam gis na ne doxut so ñu génne leen si place bi tam ak uh, ministre uh, énergie ak hmm. environnement of bi courant wét xoolal si julli bi rek exemple la si julli bi da toog five six minutes light off di ñëw even ay wante courant moo fa nekk tey nga am lu mel ni state amu fenn waaye léegi loolu boo ko waxee tey nga gis tamit. yaa ngi ministre of agriculture agriculture agriculture laa bëgg a ñëw. waaw agriculture euh, dama fi laa ne Barrow dafa euh, def lu ko neex laa foog. Hmm. wala dafa bëgg a euh, delloo njukkal nit. bon sooy génne nii si place. Hmm. ko ko ko remplacer hmm. daf ko war a ëpp qualification daf ko war a gën a xam liggéey bi. waaye waxal si kiñ génneegum. comme ni nga waxee si ñi fa nekkoon. lu ma gis mooy gis naa ne agriculture tam béykat yaa ngi jooy. si affaire yi seen jiw parce que laa bu dem. prévention mbay mi mbay MC waxal loolu. waaw mbay mi dara doxut. waaw si béy bi parce que béykat yi di complain si rajo yi. ñun béykat lañ di kool di complain estomac. an béy mooy bànqoo ni réew. Hmm. soo bëggee réew muy dox il faut nga dooleel eh, nekkal fii mais béykat eh, ministre of agriculture bi du ma gis si is more on politics mu ngi campagne. bi ko dañ dem affaire ñoom dañ dem seen place. nañ ko def women mobilize sax nañ ko def waaw seen place la gars yi téye nañ defoon nañ lii suñu bëggee si place bi dañu war campagne président bi. Hmm. boo nga liggéey askan bi euh, gis ne liggéey baa ngee dem askan bi ñu dafaa dellu si office boobu sax tey par exemple su fekkoon am na liggéey mu liggéeyoon tey bu ñu ko gënee démb rek nga gis dëkk bi ngatu waaye est-ce que politique taxul ñeneen ñu des waaw fa mu laa bëgg a ñëw am na politique taxul ñeneen ñu des am na am na tey ñeneen ñi tamit dinañ seen ñàkk dinaa dinaa dinaa la analyser foofu dinaa la si foofu tam waaw wala ministre of agriculture tey lu ñu seen si moom mooy jigéen boobu xaw ma ko wala lu ma gis béykat yaa ngee jooy ɓeɓi dohut ami rek dara dohut ko tay jiwi soko wona jina sax sa fasalade fof la jina nga dem lom distance wako jina fofu wonko isis ba dika lower wara fay halis ak mu ngi ser so be kadi sona gambia da nga gis ku bey am bey meti bey bi nga bey pare mu jina sax ci jiwi sax problème am problème ko sénégal diko diko diko diko fa jaay pour yow suma la déggé moy kon ñu dem ye ya président baro amna tay résil amna résil wala tay té mu yob wala résil mu fa amna résil tax mo guiné gaay so so ñu wé ci walu nak euh du or dañu am ñu la fa bay waaw euh di lay ko amat <laughs> waaw xam nga Amat Ba. waaw nañ ko boole def ko fa bàyyi. based on Amat Ba am na four MPs. and Amat Ba is the most loyal minister si moom lu mu bëgg a dégg loolu ak Amat di ko wax waaye ñun ak yow ñëpp xam ne ne Amat Ba ministre boobu nekk dox mooy tourisme dara duxul fa bala nga ko xam nga waxtaan naa staff yi nga xam ne ñu faa liggéey ñu wax la ñu wax la ministre bi nu mu dem dama si industrie nga xool industrie mu mel léegi bon Amat Ba raay naa baro dafa tegaroon pour am thirty seats member si assemblée bi thirty la bëggoon am as NPP léegi gis na ne amul na boobu léegi su waree génne Amath Ba mun na ñàkk a foo yooyu an foo yooyu su ñëw si kaw baro lu bëri ñu koy mën a def si léegi député yi am problème. loolu politique la moo tax mu mainten mu dem meeting ko fa moo tax da nga koy wax gars yi kon sa membres yi noonu gars yi noonu gaaw war lii ma ne leen fexe leen ngeen am député ngeen taxawal ay député bu leen dem di wéeru di endos baro because soo amee di député élève laa génne wala dafa la soxla sa député bu dafa la fu mu so daa gis ministre of nag loo ko mel naan gis nañ ministre waru bëri coow gis nañ coow yi suuf corruption bu fa nekka dafa bari dafa ëppoon ñëpp gis nañ ko naa lu mu def mooy noppal ne ko ah léegi fu mu nekk ñu bëri na coow ñu wax loyal est tamit nekkul fa foofu foofu am nga foofu lu fa nekk tam tamit foofu lu nekk mooy nga taxawal na ko from lands yóbbu ko fis dafa am lu tax mu nekk foofu te mu ko yéen kër yi dañoo nekk seen house. Hmm. gis ngeen paa yi jël kàddu di ko di ko tagga di ko gërëm xam ne kii minister bi baax na ñu xam ne lu xew yooyu dafay xamul une politique. waaw ah, paa yi ci diine lañ doon waxee. ne lim ci taxaw soo xam nga yooyu la ñuy wax rek ñu xam ne paa yi paa yi wax dëgg yàlla suñu kilifa leen boot bi eh, dafa looyal si wàllu politique because tam am na fu ko tiir benn place du ma dem ko wax mu di xeet ma dem ko wax mu di tribalisme ma dem ko wax mu ne fofu tay soko gene génnee ñooñu mu neen gis seen bu ko mum tam so deme sandu eh, eh, sandu baro fa gagne legi ci député moom fu mu jógee ministre bi because yu député député député député la won politique day fexe na ba tey loolu loolu est ce que lool de political base am moo kon tay parce que tay mom amna ñi nga xamanteni ne ñu ngi leen génne mën nga japp ne sen politique ko leen ko wax. politique li politique li Macky Sall Macky Sall ko leen wax kan soo gagné soo gox. waaw doo nekk ministre. doo nekk ministre loolu Macky daf ko def Macky. gis naa ko si benn campagne ñoom mu ne campagne bi. waaw waaw xam nga xam nga kon li MC wax nii. yow yaa dëggal ci ne. waaw Amat Ba ak Dramé li leen fa desloo seen. political branch background léegi ñu dem ñu dem. waaw ku mel ni comme ñu ñu mel ni comme défense. ak ak xam dafa ñàkk a bànju. waaw fii ak ministre finance a NCP NCP. waaw NCP eh, eh, eh, mm-hmm. zéro mënuñu bari bi bari bu gaa yaakaaroon seen bés mooy bari bi mm. yëpp la gaa yi ñàkk si loxo UDP mooy maa jàng ko sa ko mu doon deewoo gis ne gaa yi mën a am benn toogu bu bari bu bu NCP seen bés mooy bari jamono ca war a bari bu ak bakaw so léegi yaa gis ne ñoom seen bés moo tax gaa yi bara baax leen fa understand waaw soo yooyu pare pare amal si man dama gis ne benn ci amul Samaté. suite Ibrahima bi nag. waaw non dama bëgg ñu ñëw ci movement yi ak ñu appointment. waaw léegi Samaté. waaw Samaté hmm, Samaté lan moo tax nga foog Samaté tax ko faam dama feel like ne xamul ba risque dafa ko faa bàyyi. because waaye loolu kooku mun loo wax ne politique la. because mun loo tam wax ne. wala wala ma liggéey bu moo dem. ci xel bi waaw da si xel bi. ñëpp gis nañ si wàllu wér gu yaram. under his minister gis nañ lapitaan yi amul garab gis nañ jigéen yaa ngi war a am doom seen doom yi dee fa wala ñoom ñu dee fa gis nañ corruption sàcc Olivier Paul mu ne ministre bi gën a am sàcc si réew mi fii mooy ministre yi Samaté. waaw ministre bi wax na fa MC loolu ko. na ko si national assembly bi. waaw ko waxee waaw liggéey assembly bi ñoo ko war a lijjanti. ni audit bi génnee wane ne. ministre bi dafa korop. wala bala ngaa nangu. Mm. bala ngaa wax ne suma ministre dem si liggéey bi di joytu foofu. Mm. yow sa ministre gis nga lu am na fa. Mm. sa responsabilité la nga contacté IG fii ne du sangam du sangam du sangam jënd xaalis réew. loolu ah, ministre bi ñu fa nekk tam de de de civil servant laay kenn du mission de soo gisee sa ministre yow sa département fii gis nga ne ni waaye nga ko jox liggéey liggéey bu baaxut génne ko fa. donc dañ ko déggal liste mu xam ne lii. mënut a nekk su ko jëlee. oyal ministre bi ne lay lii corruption la yéen yéen looy def nii sàcc na damaa recommande bu ñu daaxale ñu gis ne kon corruption ñu ngi mi. même si loolu bu da nga ko téye hande noos yi sëñ bi da nga ko téye noos yi noos yi ak docteur si ñoom suñu saban sëñ bi sëñ bi da nga ko téye si bi saban nga booy am nga ray ministère bi nga recommande ne du sangam téye naa ko xorom sol wala ñu benn du nga ko daaxa wala ñu woon ko wala ñu police ko loolu mën naa nekk waaye est-ce que kooku mën loo ko apprécier tal loolu at least lim génn wax ne xam ne njuuj déedéet lu ko mën a apprécier mooy mu def si matuwaay parce que gis nañ ne sàcc ma nekk si ministère bi ak donc sama yola di was ministres la boro bàyyi si cabinet ok fine ñu xam ne ñooñu leen accuse of corruption parce que ñu tey lu mu tax seen ministre bi Barrow man ak Barrow ñu foogoon ne ñooñu daf la war a génne. léegi MC what is the responsibility of the National Assembly tey bu fekkoon Samanté fii la toog ma yow. mu taxaw nañu ne ñu koy wax léegi li ngay wax mooy la MC Ministry of Health corruption moo fa nekk. tey foofu mun ngaa wax ne kii dafa wax pour setal boobu waaye nga taxaw ci National Assembly wax ko fi nga xam ne foofu la ñu war a càmbare doxalinu réew mi foofu la ñuy càmbare kopparu réew mi foofu la ñuy defaree budget si mu wax fa loolu te a doon te MC moom yow due process de ko ne wax su ko waxee loolu su waxee foofu ba léegi mm. man dama gëm ne ma su ma nekkoon ministre la bala maa dem di joytu si néegi député yi mm. man bala ma fa eggal di daal si ma ne député yi suma ministre yi jàpp na ay nit bés on li recommande naa ñu génne leen recommande naa ñu ponis leen mu ngi nii liste bi est-ce sa assemblée bi tam ñu dem nañ jóg xool tam lanum du ko defee la dem na ju process lanum daaxee gars yi wala def xaalis réew mi xaalis Covid xoolal alawaat Covid bi. ok xaalis xaalis xaalis bu Gambie xaalis Covid bi. moo nañ koo jël tey liggéey ay lapitaan lapitaan yi def fa ay garab def fa ay bagages nga xam tey kenn du dem Sénégal. dafa nuyu waaye gis tey yow yow bi yaa jëlee essence ko fa. bala may si ambulance nga mis lapitaan am garab su ma jëlee ambulance nga em ma si ambulance bi yóbbu ma si lapitaan fekk la fa garab ma dee ma man njëriñ la am ok jërëjëf MC ma ñaan ñu ñu ñëw ci li nga fa nga nda jàpp nga ne tey ñooñu seen seen doxalin xëy na tax na ba ñooñu war a dem ak ñu des tey ku mel ni comme tourisme comme MC nu ko waxee ak lands ak health coow li bari na seen ministre waaye gis nañu maintain maintain ñooñu ndañu dem xëy na euh, seen bés ci wàllu politique moo dëgëratu moo tax xëy na tey président bi jàpp na ñooñu dañu war a dem wala seen taxawaay ci kanami Gambien si moom moo doyut tamit ci euh, président bi mu ne leen ñii moom war nañoo mën a dem ñeneen ñi des dore ko ci vice président bi. soo ko on politique ñu fay des parce que ministre yi fa am eh, base politique bariwut kon mun nga wax ne daanaka ñu fa des la rek. Mhm. ñu dem wante MC dafa wax ñu dem ñeena ay fee eh, ku amoon mbiri napp gi. waaw kayit tamit leer. ku ñëw du si mun dara si kayit yooyu loolu. nguur la du problème ministre bi. Mhm. loo xam ne agreement la ñu dem national assembly mënuñoo indi kayit bi du problème ministre bi ki appoyen ministre moo def agreement ak nguur la def national assembly ñoo si waroon xaar seen tànk suufee. agreement bi is between the two countries la wala between the two presidents dafa waroon a leer nit ñi wala ministre bi mënu si dara ku fa ñëw it mënu koo régler du loolu moo leen tax a dem loolu moom bu fekkee loolu la sax kii ñëw tam di seem drame moo fa nekk di seem mooy continuer si loolu dara du fa nekk xanaa mu jàpp ne gis na bi mu war a àgg àggul fa mu mu dem ci national assemblée ñu ratifié dañ ko appoyen ku ko appoyen moo doxali ne noonu mhm. national assemblée ñoo doxalu seen teer fu lu mu waree agreement bi ñaari réew la wala ñaari président ñaari président mënu agré si dëkk lo xam ne ni loraange la ci dekk di jëlé lolu mën tané ka soko soko ko ci si ku amé mbiri napp gi su ñëw ci ku amé mbiri mbay mi yes ku tam di problem problème mu fa bu because daw mën neen wax né mbay bi doxut lolu xamné ko te ministre boobu mu waxon né mënu ko amé absolument mënu ko amé indi neen fa keneen dineen sét because ko daw rek rek amna fa indi neen ci fertilizer engrais bu nga xamné ni tey si si mbay mi noor neet bi di ñew engrais amu fi bobu dafa warona warona nek ci bir store right now ñu ko doon jaay sey bi nga dem na be ñi deal ko jaay ko Senegal. ministre degulo mu condamné si dara. am lu ko am lu dem President mo dem rek. dañu disappoint hmm. am nañu ñu disappoint te ñoo dem jaay engrais bi nangam nangam ben investigateur gis na tek nañ ko ci te jaay mu wunun ministre bi xam nañ si dara ñoo ko dem na Mali dem na senegal ba senegal ci sen douane yi dañ doon dem ci toli sax di japp ñuko day des so ñeneen ñi dañ ko doon jënd xar ko duggal ko ci benen saako door di dem diko wis sen seen tool yi so am nga keelenes bu am si biri engrais bi ba lu warona jëfëndiko a jëfandikoo si nawet hmm. ñaari nawet for sax gambien si mënatuñ ko na am bu ko su mu jégi saako bi dem na be thousand two 1500 thousand five hundred pour nga am ko essai problème so lolu so lolu mom ku melni ni kok ak ñe ñu dem ak résine warna am tax ñu nangu ñu mën leen ñu def yes bu dé résine rek am ñu fi tok sax résine tax na ñu dem because lands problème il faut nek ken xamul mu am waaye kooku mu ngi woon maybe politique interest moko fa baye but loolu mu na indi lorangé loolu mu na indi lorangé bu baax si si mom élect hmm. bu ko sudee politique interest rek si la mo doon West Coast lan la am West Coast dex officer la West Coast daf ko ñaka danaka ci parlementaire ci parlementaire impact ak result bu niki doxal loolu nga wara xol bakari tay dafa ñak moy dex officer KMC KMC gars yi fi am bot mu ngi mu ngi rimen bot comme nuko MC waxee dafa ñew si ministre fekk ministre bi dara musul faa baax depuis Bakary Diamé xaaba nu mu tuddati ñoom ñooñu ñëpp defuñ fa woon dara moom mu ñëw defaraat ko te pareegu si defar bi xam naa this time dina dina bale moom tam parce que am na fu nga xam ne daf ko war a bale pour mu mu gis na fii set na ba pare samp doxal yàlla may ko tam mu ñëw you know team bi si leen dem African Cup of Nations kon kooku riche pour ñu bàyyi ko fa fekk du politique sax moom fa bu doon politique mun nga dafa ñàkk euh, a bi KMC waaye terewul nañ ko fa bàyyi bu ko dafa am risol ci liggéeyam. dafa bëri ministre yi nga xam ne nii. Mm-hmm. dafa amul risol ba comme people lay amal ba dëkk bi yëpp bëggoon mu dem loolu moom nit ñi ñoo ko waxal seen boppa te mu ngi ko fa bàyyi because of 4MP te dama la bëgg amal benn if amal ba su ko fa génne woon sax NPM yi mënuñoo fexe ba duñu ànd ak borom politique am na ñu nga xam ne da ngaa jël risque dafa am lu mu laay yaaxal te nag moom am na foo ministres yi nga foog ne nii ñoo ko ñooy gannaaw ñoo ko boot. Mm-hmm. mun na koo yaaxal tey lu bari. ñu ñëw si Samaté Samaté amut dem na si National Assembly amul National Assembly ñoo war a wax nangam nangam ku taxaw na suma kër njuum njaaj mu ngi fa mun loo identifier nekk diw ak diw la ñu bàyyi la fa yow dañ bëgg njuum njaaj googu continuer yow ak kële fa teg da ngeen bëgg njuum njaaj bu continuer soo des loolu mooy wax bi. gos hmm. nëbbut ko dafa taxaw wax. bu gos dañ ko appoyé National Assembly teguñ fa Samaté président moo fa teg Samaté ki ma fa teg mu ne suma dëkk su ma kër am na njuum njaaj maa lay woon ne la rek la ñu jaay mënoo ko rek la yi ñu cee tuuma rek moom kenn ki nga xam moo génn sañ wax loolu waaw kooku tamit a ni ba pare njuñ jaay bi mu ministre yi feeñal loolu sax waroon na tey non ah, benn ak ban ministre si lu mu ko feeñal ne moo ko war a mën a baat amul si bu ko gàccee la sax nga ne suma kër moo gën a lënd ba pare audit bi ñëw soo xamee li plus audit bi ñëw tam ne sa kër moo gën a luubal moo gën a am njuñ jaay ci Covid bi. ci bi ak soo loolu nga ñëw nga ne ne kooku la kooku du reason ba pare du politique amul political base ba pare second li mooy ne tey soo ko xool si result of l'hôpital su du ambulance lan lan la ba léegi l'hôpital yaa ngi jooy. ambulance amul njëriñ. l'hôpital yaa ngi màgget amuñ garab samata amul amul amul result si si si health in this country. mu taxaw mu taxawaan na la su ma dëkk su ma kenn am na njuñ njaaj nga bàyyi fa kooku da nga bëgg loolu continuer wala lan alright maam ji bi xam naa mun naa da ngaa gis-gis ñoo samante ak ñeneen ñu dem ñu des waaye ñu dem mhm. euh, ndax nga ne xëj na ñàkku politique bi wala taxawaay seen taxawaay ci liggéey bi luñ doon luñ yaakaaroon ci ñoom lañ motalut moo tax ñu président bi jàpp ne amoon di lot ñooñu mun nañoo dem waaye ñeneen ñi ñu nga xamante ne sax Gambie bu Gambien si ñu ngi doon séentu ñu dem mu ne leen non ñii dañu war a des te moom moo am that privilege and prerogative right pour maintain wala appoint ki mu bugga ci nguuram bi. waaw ok damay commencé ci Amat Bah. Hmm. waaw la <laughs> comme fi nga waxee xaw ma MC moom euh, analyse bu mu indi noonu ci about MP yi man gëmm naa ne bu fekkoon président Barrow loolu lay ut ci Amat ba hmm. bi Amat ba ñàkkee sabax sanjaar rek daf ko waroon a leer ne ñeenti naam yële yëpp warutoon a tax Barrow sukkandiku ci loolu ba di desal Amat ba ci ministre bi. ok boo xoolee am mat Ba ci ministre mun naa wax ne bokk na ci ministre bi nga xam ne tey jii Gambien si foofu lañ gën a yàq yaakaar ndax li tax mooy hmm. Gambie ku ne xam na ne bay jamono di baax xale yëpp bij bi lañ yaakaar am tubaab onosaan nga ñi mën a soppi seen life waaye tey demal ci bij bi nga xool ni environnement bi di mel. Ah, moo tax. tubaab yi ñëwuñ no even though Gambia is the smiling cause of West Africa. Mm. waaw xam nga Gambia. waaye ñu ngi laa wane Amat Ba tax na ba tey. Mm-hmm. Euh, li nga xamante ne mooy si ñu doon ñëw ci réew mi yokku na amaan bi yokku na bu baax ci période am. te moom moo tax loolu moo. ana impact léegi ana impact bi laaj maa ngi bi moom laa la rek Covid bi ñëw yàq yëpp. waaw léegi after Covid nag xam nga na nga xamante ne ah, ba léegi léegi nag foofu. bu fekkee bu fekkee gaa ngi ñëw. Mhm. te amaluñ njëriñ doomi réew mi amul njëriñ. on sàng amul njëriñ ci réew mi benn ñaareel bi mooy ministry of tourism dafa am ministry bu nekk ci biiram muy culture culture moo gën a sooxee ci réew mi tey biñ ne Barrow dafa change cabinet am artiste bi gën a ndaw dale ko ci taalifkat bi tëggkat ah, bongokat yi mm-hmm. ñëpp dañ ne ñoom dañ bëgg a ministre mun lay wan ne seen ministre bi dafa sooxe mm-hmm. doxut exemple ñin ñu ngi ci làmb man mosumaa gis amat mu def ci wàllu culture te làmb dafa am sports ak culture mun xamuñ sax ne waa làmb xamuñ ne sax kii am na lu mu war a contribuer ci ñin lañ nekk. absolument on léegi nag kooku bi dafa am booy culture dafa am culture am na culture waaye tamit. lamba is culture. non non non xam naa li ngeen di wax mooy. lamba bu fekkee lamba bi moo wax Sénégal tey lamb foofu la gën a dox. waaye tey bu ñoo tàgg ci ministère Matar la ñoo tàgg. Sénégal dañ séparé sport dafa am waaye ministre of culture xam naa waaye ah. culture bi la la nekk def ci lamb. non dafa dimbale waaye du benn. ministre culture dafay dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk. ñoo mbër yi am jafe-jafe tey euh, ministre of culture mu leen dimbale lan mbër yi fu nekk di am jafe-jafe ñoom ñu ngaan ñoom foofu la ñoo demee ñu ñaanee di ndimbal misi seen ñu am jafe-jafe Amad Ba est-ce que foog leen du loyalty moo ko téye ci mbir mi foofu laa ñëwee léegi loyalty ah, boobu moo mooy tamit président tamit dafa bëgg loyalty nga mën a jàpp ne président bu bëggee loyalty léegi président they are servants of the Gambians loyalité yooyu bu ko bëggee na ko advice na ko appointance advice every day muy xëy ci office am lu ko neex mu déy ko suñu yoon nekku ci onasan mm-hmm. loolu moom his accountability direct to the president mm-hmm. waaye loolu la waaye xam nga Amadou man wax naa ko fi te dama du ma tey di ko wax lenn na lañ war a understand ministre yi suñ ay surga lañ président bi sax waaw waaw lu président moo ci jiitu xam nga président bi kooku ñin ñoo koy fay suba ngoon guddeeg bëccëg dafa óolu ñii mu teg leen waaye lenn na war a understand pour ñëpp xam ne Gambia foog ñu génne di consensus and the mentality of foog ne ministers yi they are better than ok loolu dafa war a change loolu dañ ko war a génnee suñu léegi léegi ñu wax ñu wax ci ñu ñëw yu ees waaw health health samate lu ma la wax waaw mooy ne man samate li ma wax mooy man gëm naa ne Barrow loyalty la ko bàyyee ci cabinet moom tamit waaw ndax loyalty bi mooy wax naa la ko ma ne la 2018 bit three years jot na day def seen protest dem naa five years bu ñuy def seen moom kenn laa fa gis as a ministre muy dugg si biir mi ñi wax ak media bi on nga nga jógee fa dëgg la li ñang wax bañuma ko waaye gis nga Gambian yu bëri faithfuluñ dëgguwuñ waaye samate ak loo bañ bañ golo nangul ko ne genn ga gudd na taxaw na ci assembly bi mu ne ministry of health te moom dafa inherit ministry bi. te moom sax def si taxaw def na effort sax de maam. kan moo fa nekkoon balaa moom non MC MC dama bëgg ñu waxtaan rek. non def na effort dama bëgg ñu waxtaan rek lan la ñan la ñan fa ñan fa. il faut sama gars yi indi affaire yi mu bloqué ko mooy leen lii mun fa bàyyi. ñaawul kenn génn waaw loolu la ñan deful effort. non amul doole bi. loolu tax loolu kan moo am doole bi léegi. amul doole bi président moo am. national assembly am nga investigation foog mu am. national assembly recommend nga wax recommend kay oput. MC Thiam ma ne MC non non non non MC. MC recommend oppure mu taxaw ci national scène wax ne fii ay du jaaj mu dem nañ bi nga da may ma 30 ah, ah. secondes let recommendation yi barki démba man dem naa bundu maternal hospital dafa ministry bi dañ bindane dañ bugg a CEO bi ñu jógee ko fa yóbbu fële non si ñoo génn ne bëgguñ mu dem. waaye kooku waaye kooku dafaa dem. waaw loolu laa wax xam nga dem na. waaw non dañ ko war a defal sax léegi yow corruption bi ngay wax noonu biñ ko fi waxee. ko fi waxee on a sànd gis nañ ci ministry bi am na noos yu nga xam ne génn nañ doon protest because of seen allowance yi. te feeñ na ci euh, euh, audit report bi ne euh, ministry of health. corruption dafa feeñ ci alawaan si waaw léegi nag ki taxawoon wax na njuuj njaaj mu fa loo bañ bañ golo nangul ko ne génn gudd na ne moom junj na nit ñi ne ministre bi am na njuuj njaaj bi mooy élément njuuj njaaj bi nag waaw la wax nangul taxaw ne suma kër dafa dafa am corruption te mënuloo wax ne bala ngaa dee dimbali si nekk député yi yow loo mee na la ko yow yow as ministre nga recommendé du sangam du sangam yeah. even even even yow sa asa organisation nga gis ne yak MT Thiam yaa ko jox place sangam mënu ko yobu da nga ko faa génne wede lu tax mu bu ko doxal docteur bu euh, nekk bundu bakki ba ñu la fi guéné wéddi wuñ ne loolu seulement feel like moy ministre of health dafa nekk dafa nekk crédit ko fa de bala nga dem ci néegi député yi tay lu nga wax néegi député yi health audit report mu guéné ban ma gëna yoku dafa feeñ dafa feeñ dafa soo kon léegi moom moo waroon a atu balaa balaa nga reporté war a wane ne da war a bira ne wax na ko si léegi député yi def na action génn du sangam du sangam waaye xam nga audit xam na ne wax na ko si député yi wax si député amul a em bala mu egg fa moom souvent waaye yi ngeen na ko si léegi léegi baal baal ma baal ma rek léegi ñu ñëw ñu ees gis ñu mel ni comme <laughs> ministre of agriculture <laughs> ah ñoom siyaak ah siyaaka ñëw na <laughs> ak ministre of agriculture man siyaaka la sax mooy kii siyaaka jaata siyaaka jaata waaw ah, Sonko Sonko waaw siyaaka Sonko sori waaw waaw police waaw kooku est la moom nekkoon na yor moom foog naa waaw man dama ko bëggoon a jaawale si ñoom Sonko la tey nga xamante ne moom ku fa nekk interieur gis nañ euh, Serigne Serigne moo xam Euh, non Serigne difen la waaw ñu feesi si non noo waaw gis naa ñu feesi. Sonko. waaw gis naa. waaw Siaka yoo xam ne. waaw ah, dafa remplacer dixième Sonko. waaw dixième Sonko Sonko yi ma <laughs> naa ah, Sonko Sonko Sonko waaw euh, lu ma gis mooy si ñu ministres yi ees yi euh, ministre of energy xam na liggéey bi nekkoon na fa bi Jammeh. Abdou Diop Abdou Diop. Hmm. nekkoon ni ko xam ku strict la ku xam du dee compromise. kon nga ko liggéey bi xam naa ko bu baax a baax démb sax xool naa ko euh, ndokkale ko euh, xam naa ne mun naa yóbbu ministre bi because time yi jàmmee nekkoon na fa nekkoon na nawek mm-hmm. quoi nekkoon na MD nawek nekkoon na ministre of trade euh, xam na si lu bëri. am naa yaakaar ne c' est very good appointment la ko Barrow jox noonu. ok agriculture soo ñëwee si agriculture dafa laay mooy baag boo di dëkk réew moom la gën a yaakaar. danda call nga ko because ko uh, xam nga ko Demba uh, feel like ne pause bi do am na ñu ne wax ne waa so waree jox ni place <coughs> uh, ministre jarul nga am that qualification of that ministry man man personally nanguuma loolu because ministry bu nekka suñu suñu small knowledge sax even a foundation sax wuro ko mën si ministry bi because gambe dafa tollu fa nga xam depend mo on the permanent secretaries ak directors to mu ne mislead loolu laa bëggoon a wax. waaw su nga foofu maam ban fa la jógee ban kaw la jógee ban kaw la jógee. bondaali foo ñu. du kaw di. fu du kaw di ah, fu du kaw di. waaw waaye defal nanka maams maams maams ma ma de xa mémare mémare saabali. laay fam yëpp non laay fam yëpp fu mu ko defee. ko defee non ada mémare laay fam Amérique la ko defee. soo ko jontee ngos-ngos man ak yow yow mii man su ma jontee ngos-ngos mënu ma koo def waaw. waa Amérique waaye dama laa ne bu nekkee Amérique lu fa nekkoon dañ jàng noos. so waaw noos la woon. waa léegi waaw maa xam mooy. Hmm. Barrow daf ko jox pause based on delloo njukkal. delloo njukkal ci la waa xëy na bàyyoon na GDC def na effort taxawal na ko jàppale ko si yu bari. mu fii laaj ne waa NPP dama ko Barrow soo bàyyi xel after président élection si. delloo njukkal lim tas GDC waaw after non it's not about tas GDC bu na tas GDC. Ah, bàyyi na GDC am nañu aana moom dem fine ba dama wax ne mooy euh, moom. ba dafa taxaw mu ne man suma government bi dinaa si make NPP nañ si bëri ak suma panda si suma cabinet bi loolu la wax si interview ak standard maa ngi ko fàttaliku waaw loolu feeñut so xëy na mu ngi fii laa ne waa pii laa su ma waree jël yëpp jëluma waa NPP wala jëluma yeneen fi ñu jaar suma soppatay doo di fii something ne kon ñun kii dañ ko toppa rek waaye nit am baat pour am place waaw saabali bu dafa ñëw NPP waaye tam dafa ñëw contribute taxaw sacrifice jël risque bari jàppale ko so wala wala saabali tam est ce que du commitment rôle mu ko jox nit ko xam ne il faut mu ci attitude am because Sabaly dafa arrogant man su ma wax dafa dafa leer nañ nekk nit ko xam ne respect gu nit. waaw lu ma la wax mooy lu ma man man liggéey naa moom du xam naa problème mu am ak GDC xam naa problème mu am ak keneen ak keneen parti yi gis naa tey ñoom ñu ngi ko bindal gars yi GDC ñu aanaam ñu ko congrate dama ree xam naa ñu ak ñoom Sabaly nu meroon loolu fu mu jaar mu ko mun na koo ceeñ bon ministre bi mu amee dafa laaj ministre xam ne dafa war a oyof dafa war a déglu dafa war a respect ku nekk peut être bu mu xool ne parti bii la bu ko ku bañ UDP la du ko def compromise ku bañ UDP la peut être loolu. yaa ngi jaxase non non dama dama expliqué loolu xam naa loolu si moom. il faut waa non li ay béykat la ñëw amul am na ko analyse waaw waaw béykat yi am na yu doomi UDP am na doomi GDC am na doomi NPP am na benn benn so il faut mu mu tuddee école bu ko place bu right now dañ ko soxla bu ko gis nañ dund bi ni mu yokkoo léegi agriculture right now government dañ ko war a focus agriculture dañ war a dooleel ay baax a baax si agriculture so area boobu dañ war a meg soo moom lu mu war a def suñu yaakaar yi foofu la war a nekk ba dafa war a emal ñëpp ñu a yaakaar bu right now gis ne dund bi nu mu yokkoo fu mu nekk nii foo leen soxlaa léegi right now so right now moom il mu ci attitude mun naa change doomu aadama day change mu respect doomi aadama. waaye am nga yaakaar ci moom. ah right now fu ñu naan jokkoo benefit of the doubt. ministre of environment nag. fu ñu naan jokkoo chance. ministre of environment. environment foog naa mooy. Eh, Rohi John Rohi oh. moo nekkoon gouverneur bu. waaw dégg naa mooy ah. jarba jarbaati ah, la. waaw so kon ah, na right. as far as nekkee doomam la sax am na qualification mun naa saaf nguur. loolu nangu naa loolu. Mm-hmm. ba ñu bëri woon waa jarbaatam la jox place. su nga am na ko am na kayit am na qualifié am na liggéey mun na koo def mhm. doomi réew mi la rek mënu ko stop pour nekk place boobu loolu dafa leer Lamine Queen Jammeh as information Lamine Queen Jammeh riin na waaw forma forma Lamine Queen Jammeh Lamine Queen ah, Jammeh moom Lamine Queen moom sax mm. su ma doon wax kan nga war a def ministre agriculture moom laa ko doon mm. nekkoon na gofanu béykat la am na rapport ak ñoom xam naa lu bëri si moom time nekk ñoomi on a sànga kooku not bank kooku ko ko jox ministre ko ko jox ministre agriculture wala tey nga xool information right mu toll nii da nga a mun xool ne kii is loyal to me bon xoolal ministre boobu dafa nekk dafa war indépendant. maanaam xam nga information Gambia yokku nañ ci boo xoolee boo xoolee boo xoolee. boo xoolee xam nga yokku ne yokku bi yokku ne yokku ne information. xam nga Gambia yokku neen. waaw so moo tax ma ne. kon si la traité na. moo tax ma ne il xam nga si la si la wasa si la journaliste la moom war na ko. ma ne fii boobu da nga lay ko xam ne bul xool ne he is the PR of NPP. bien PRO mën nga jël na mën a wax rek pati yi bari seen piaro yi kenn kenn nekkul journaliste. dafa wute xibaari réew waaw di mën a wax rek wax si kàddu pati pati wax li nga wax loolu yomb na. ok léegi si beneen. waaw ministre bu es bi. waaw ma ma and digital xam nga ma am tam waaw léegi. Mhm. ministre of naka information xam nga dañ ko separate. waaw man daf ma jaaxal. beneen bi moom waaw lu ma jaaxal mooy. communication and digital economic yow Gambia soxlawut ministre yu bari. réew mi ba ki dama njaay IMF wax ne ne Gambia si risk of naka debts réew mi bakki dema ñaan ministre yi génne nañu né dañu wara a dañu wàññi allowances dañu wàññi sen transport yi dañu wàññi essence yépp dañu pour pour ministre yi yaa ngi yaa ngi dog government bi hmm. yaa ngi créer mo office pour lan xam nga digital digital digital wala wala num wala est-ce que fofu tollu ta xam nga yokuté bi ngay wax légui ci information communication ak information mo indi yokuté ci walu wala So jëlé so jëlé information and communication def ko bénn ministre it's very simple ministre bi nga yokk permanent secretary su ñaan ñi dañu def liggéey bi bor so wara jël nga créer mo office créer mo staff par yo ya ngay wañi explain si other government department, sen travel sen alawan ci so wara is the of having big ministers Is about nga am ministre yi m ñu proactif prêt pour liguey légui xam ba bu benen bu bes public service bu ñew public service bu nga dafa set civil service wa xam nga civil service dañ lack discipline dañ lack discipline because tay nga ni ku dem liggéey 9 clock 3 clock mu wacha da nga am ci liguey kay department sa nga waxa mom sa mu tok dila xol ni ma ngi neew maxi mobile bi du ko def ko neex respecté kenn on les ñu gis ne yow autoriste nga ñu jola cër bi. kon loolu dina dimbale pour. of course il faut la nga Gambie pour imprimer mooy problème bi. mën nga abonné ki es mu door ko three months two months rek. mus mu stop. Babacar corruption dafa yaaxa réew mi tam. <clears throat> Babacar Ousmane Diouf mi ñu fa def xam nga ko ndax yam nga yaakaar ci. Fana kii a wax. moom Serigne la. waaw Babacar moo nekkoon. Euh, Gambien euh, Tijas xaw ma union transport union something bi. waaw gis naa sonné si encore ñu ngi ñu ngi. waaw comme di di di move. so kon am naa yaakaar si moom. Mm-hmm. waaye lu gën a am solo mooy ñu ngi koy ñaan. Mm-hmm. loolu liggéey bu am solo la. because tey eh, nekk civil servant si. Mm-hmm. den sama dem den laaj discipline. loolu moo nekk ingénieur réew mi tamit. waaw den laaj discipline because da dem liggéey nine o'clock balaa two o'clock nga ñibbi nga da ko faale. Ah, président bi mu ne di tamit léegoo-léegi nga gis ngénte doo ñëw liggéey. déedéet xoolal déedéet par exemple démb lu xew démb si côté boobu kee tamit magistré mu ne moom driver bi mu ñëwul liggéey si mun da ñëw si code bi sa driver ña bañ a ñëw liggéey si yow mënuloo dawalal sa bopp. non procédure yi amul. waaw soo ne yooyu xam nga yooyu lu yomb la. ok xam nga soo yooyu. doomi at doomi jaamu yaa ngi ko téye fu am ngoon yéen a ngi toog benn mu comment ci vice président bi rek. su ma last question rek mooy. waaw euh, bi mu ñëwee dafa yokk ministre bu ees. waaw muy ministre of euh, women and gender. waaw. Euh, Fatou maintain gis nañ ne this time around yokkaat na ñaar. Mm-hmm. wax nga léegi yokk yokk yi yow pour yow yow daal. <laughs> <laughs> ak vice président bi from <laughs> jigéen góor ku fa nekk waaw xam nga affaire yi gis naa jigéen yi waxoon na ci gis naa jigéen yi complé ah? ay si badara nga man man du ma nekk mun naa nekk jigéen mu nekk góor mun naa nekk ndaw sax mun na naa nekk vice président à hmm. ah, France am nga di age bu bu loi bi laajte hmm. am nga di qualifications ama si projet loolu mais dem muy nekk xale wala mu nekk mag oo mu nekk jigéen avant ah, li ñu soxla mooy réew mi doñ loolu lañ soxla jigéen dafa nekkoon gis nañ jigéen bu fa nekkee lan moo fa lan moo yokku lan moo ceeñ une tontu jigéen boobu dafa arrogant Badara mu ngi woon ci nguur gi mu ngi woon ci ministre bi tam am na ñuy wax laam-laame ne bu mu nekkee ministre higher education tam yu bëri tam mu doon soox bi soo bàyyi xel students yi ñu ngi doon effin dem am classroom université problème na woon si ron guy la ñu sodee yow gis nañu wa students yi am na doon complément ay éducation léegi Pierre Gomes moom daf dee baa nga xool askan la bëggoon nañ ko ñu muy ñi muy liggéeyal ñi muy liggéeyal bu ko xale yi bëggoon nañ ko nekk xam nga xale yi bëggoon nañ ko université yi bu ni père bi euh, gars dafa te soo ko joxoon tey docteur am bi dafa nekk ko buddi buli di ko xaar social media bi bu ko am na presso boobu amul ko mm. kenn buliwu ko kenn kenn nekkatu ko attaque mu la amoon bo so bëgg ci politique parti nga ñu isla fa la gis nga li mo taxoon. ok jëm MC mo ñam finally euh xamna ni liñ bëgg a toji affaire yi sax xëy na na. Mm-hmm. winning team bi nga doon xam da gis nga ko nak japp nga ne li mu nañu may gën chance ñu ñu seet ñi dañu win des nga nga ne ci bench bi ñeneen la joggé mouvement amna tay ban façon taxaway la jëwri ñi wara am ci Gambia fu mu tollu ak yaakar bi nga xamantene ne Gambien si loolu lañ doon sentu wacc ci fil bi jege askan bi ñi tax ñu fal leen ku leen soxla gis len wax len sen soxla ñu def luñu wara def waye gis nga buñ fi nekké di teju acc sen tej sen office ot nekk si buntay waxon nako demba ko ñett yi leen wara moy do mun a sa kër ponkal tok si bunta bi tej sa bunta auto bi ponkal tok fa tej office bi ponkal tok fa nga ne da nga liggéey nit ñi. kan sa yi ñuul. lolu nekk. fokk ñu wacc si fil bi jégué nit ñi. Mhm. gënu nit ñi té surgo nit ñi nit ñi tax ñu fa. xam fan mooy métti ñu dem wax toog ñu alxames fan na alxames la dina am cabinet ministre avril mhm. bi dañ ko dee am ku nekk yóbbu li nga jëlee si askan bi waaye ñi fan la ministre yow ñu jooyee ñu bokk si yow xamuñ la loolu moom ku koo def parewuloo def sa liggéey te na askan bi raayit naa wax ne ne duñ ko may kenn pour loolu mu continuer waaw ba pare itam nag fu ne nii na mhm. ñoom ñëpp fal nañ leen waaw léegi nen traité mhm. ñu def liggéey bi si nu mu gën a sottee nen ba pare nañ si góorgóorlu bu baax xar si seen tànk parce bi dafa parce réew mi dafa war a dem de te réew mi demagul de xaan xaan lii ba leen nekkoon mais bi fan yi dina baro dina génne xaan lii def number one wala ñi ñi seet naka la ñu ok soo den bugg a dem am mayin kenn amatu may kenn chance amatul excuse amatul dara piib rek mënoo gore nga wàcc tali bi ñu dem ñu ok maam finally waaw baroon a dëgg ci ay kàddum rek mu ne performance based on contract la ono sànn muy appoint moom loolu la wax keroog bu muy mit nii mu ne performance based on contract mm-hmm. Gambian si bëri nañ ñii jox na leen opportunity ñii jox na leen second chance mooy ñi fa nekkoon mm-hmm. ni ñaa ngi ci am euh, xalaat yu wuute ñii ñëw ees tamit nañ leen may six months one year ku ci liggéeyut mu génnee la non bari na ci bu na la neex bu ba ngay dafa kañ neex yaakaar bi loolu lay doon ak lan moom dafa bari lan ngay lan ngay ñaax ministère yi nga xamante ne tey lu ma ñaax ministère yi nga xam ne ñoom lañ jël waaw nekku ne ñoo gën a am euh, la ñoo gën a jàng gambien si nekku ne ñoo gën a xam gambien si président bi moo am euh, yaakaar si ñoom buy politique soo bàyyi président bi gambien ñoo ko dénk réew mi ne koy war ngaa mun a fal koo xam ne am nga yaakaar mu liggéeyal euh, nen xool réew mi réew fi mu nekk dafa taxaw fu nga xam ne mu ngi cross road la nekk. Mm-hmm. su dañ soxla liggéey bu gaaw. waa ah, ñu xam ne tam ne eh, moo tax ma ne ñu mayagum gaay chance. Mm-hmm. ñu wàññagum attaque bi wàññagum bulli bi mayagum la ñu xoolaagum gaay. Mm-hmm. bëgg noo ma ne nit ki war naa mën a am. honest office. waaw loolu a wax honest three months. waaw from there honest from there di nga xam la kii mun naa yóbbu lee wala mun koo yóbbu. ok so il faut ñu may leen time tam pour ñu mën a lifin. ba itam nu ministère yi mën a pousse ku nekk si kaw. waaw moo war a bàyyi nelaw bi. pere pour liggéey bu am solo. because tey mun nga am good ministers. why is the president is not willing naka pour deliver. waaw oh, c'est problème. pere na pere make sure nam ne corruption na ko xeex recommandation eh, naka audit report mu ngi isi nii. na ko implement bu mu xool bu mu xool permanent secretary na na go <laughs> yi. Eh, eh, na bàyyi defante bi. ñu bàyyi mu ba na bàyyi attaquante bi na xool doomi réew mu nekk mm. ku taxaw di criticiser nguuram ah. du noonam jërëjëf MC du noonam lu mu gis ah, mooy non suba la ñëw ci loolu ah, du noonam du noonam doomi réew mu taxaw di criticiser nguuram luwaa ko may right boobu. waaw ñu xool doxini réew mi. waaw te li nga ko critiqué mooy wàllu corruption. jërëjëf MC te kenn ku nekk bëgg na jaama si réew mi. mooy suñu jaamanu ñëpp. jërëjëf jërëjëf kon nag ñu ngi lay gërëm bu di la sant ci ni nga ñëwee ci jotaay bi am na solo gërëm maam ak euh, Modou Niang ci euh, taxawaay bi